bu ngeen seetloo conseil des ministres bi weesu président de la république dafa euh, santoon gouvernement pour ñu ñëw xool situation bi ne fii ci Lac Rose euh, li fi xew ak euh, itam lan moo war a ne taxawaayu nguur gi ak ay service am ci safara lepp li nga xamne xeyna tay na tey fi jàngoro nan lañuy koy safare ba pare nan lañuy fexé ba loolu du mën wéy du mëna am tam item euh, li waral loolu nga xamne ne ay jafe-jafe lon parce que amna lo xamne def nañ ko euh ñu ngi ñu doon expliquer léegi que buñ ko def lon xeyna waxtu wi ci yeneeni gox ay waxi bakkan lañuy wax kon xam nga nak lo gis rek bakkan ak gëna fort kon euh, parfois itam état euh, ci ay priorité lay dox lay def dara man na xawa jur jangoro tuti waye fekk lamu mu aar mu lol lol lool li ñuy joy fiñ toll ni kon nag eh, ci gàttal eh, wax gis nañu ñiy exploité xorom si gis nañu itam ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu aar itam fi ñu ne sax fi ñu taxaw ni réceptif hôtelier la gis nañ lam fa yàq loo xam ne ci ay infrastructure ay restaurant am dem nañ ci ndox wi eh, piscine 300 mètres carrés fi mu ne doog gis mu ngi ci biir ndox mi et cetera donc yàqu-yàq yi bëri na waaye li gën a doy waar mooy dañu ne Lac Rose mu ànd ak ay activités touristiques mooy touristes yooyu bu ñu ñëwul loolu yëpp day taxaw kenn du jaay kenn du liggéey hôtel du ubbi fi mu ne nii hôtel réceptacle yi fi ne ñu ngi nekk ci phase boo xam ne ay annulation de réservation la ñuy dund euh, ñi nekk ci euh, xorom si ñoom seen activité dafa taxaw et cetera donc loolu dañuy ñaan euh, service yi fi ne nga xam ne yenn yi ci sama ministère lañ ne waaye yeneen yi ñu ngi ministère de l'eau et de l'assainissement yeneen yaa ngi ministère du tourisme yeneen yaa ngi ministère artisanat wala collectivité territoriale ñoom euh, gouverneur dajale leen euh, ci ab diir bu gàtt pour que justement ñoom ñëpp ku ci ne constat yi nga def diagnostic yi nga def ak propice de solution yi nga génne euh, ñu mën ko tënk autour du gouverneur pour mu mën ñu ko jébbal ñu xam lan la ñu mën a def ci diir bu gàtt pour ñëw jàppale en tout cas taxawu askan bi lan la ñu war a def ci ay études ak réalisation ci loo xam ne loolu dafa laaj app bu gën a bu gën a sore pour que justement état bi taxaw ci parce que dañu nekk ci ay jamono yoo xam ne ragal nañu euh, jamono yu ndox la kon nag loolu bu il faut ñu jéem a fagaru donc ci gàttal loolu moo doon solo si visite bi.